faj nag xëy na am na lu ma si donn waaye donn dañ ne doyul que faj balaa am solo nga continuer di jàng que xam-xam dañ ni saa yoo ko bàyyee mu bàyyee la. Mhm. kon doon moom kenn du si yem mais da ngay gëstu doole si li nga doon. Mhm. Euh, ndax euh, maanaam bu ñuy xool paj mi kañ nga ko tàmbali ak euh, ginnaaw donn ko rek kañ nga tàmbali paj mi. voilà donc bi ma dalee gëstu si wàllu faj si wàllu xam-xam ba léegi defe naa fukki at ak juróom-ñaar la mais bi ma dalee faj ba léegi juróom-ñaari at la. Mhm. donc nga xam ne gëstu naa fukki at. soo ko commencé faj faj mi nag comme ni nga ko laaje léegi dinaa faj si reen dinaa faj si sunguf dinaa fajit si baatin muy wàllu alxuraan donc euh, yan ñooy feebar yi ngay faj voilà feebar yi may faj bari na feebar yi may faj bari na xam naa ne laaj ma feebar yi ma dul faj moo gën a yomb laaj ma may faj <laughs> kon yan ñooy feebar yi nga dul faj waaw maanaam li nga xam ne xëy na instant bi ñu toll nii mën naa ne xëy na sama xam-xam yàlla wanaguma lu koy saafara am na si feebar bi ñuy wax sida <laughs> xeyna nak amna su na mëna am lu ko xawa calmer mhm. mais gisaguñ lu koy faj mhm. li di drépanocytose mhm. mën naa ne aussi am nañ lu ko mën a calmé mais amuñ lu koy faj lii di goitre aussi la même chose mais bu weesoo ñetti feebar yooyu yeneen yépp am na lu ñu si yàlla woon incha allah loo xamee ne kon daal yow euh, bu ñu seetlee nangu nga ne du lépp ngeen man am na loolu ngeen tële effectivement man damay wax ne toujours ñaari faj yi boo si jël rek dafa am limite fajum cosaan mi am na fu mu mën a yem fajum euh, nasaraan mi aussi am na fu mu mën a yem mhm. donc moo tax ñu waraat mu ne ne complémentarité ku nekk dafa am foo xam ne war far nga war a jàppale sa morom mhm. ah. Euh, bu ñuy xool maanaam euh, ginnaaw nee nga euh, ñett yooyu wala boog ji jëm ci feebar yooyu hmm. moom nga xam ne xëy na am nga ci loo xamee ne xëy na mën na ci jëm hmm. waaye du faj ko kon hmm. nangu nga ne mënuloo faj loolu kon yeneen feebar yi am na lu la ci yàlla may waaye yeneen feebar yooyu laataa nga koy faj da ngay xam maanaam feebar yooyu mooy lan yow yan ñooy maanaam jumtuwaay yi nga xam ne moom ngay jëfandikoo ci wàllu diagnostic ngir xam kat ne patient bi ñëw ci Serigne Samba Ndiaye feebaru diabète moom moo ko dal feebaru asthme moo ko dal feebar bi ko dal feebaru ulcère la buñu xolé manam maanaam amu leen ay appareil yo xamé ne manam mën na leena may ngeen nat ngir xayma manam ki ban feebar moko dal voilà lolu dina sawar tontu puisque xam nga feebar bu ci nek dafa am liñ wax symptôme dafa am no xam non lay feñ ci doomu adam bo jëlé ki am asthme wala nga jël ki am diabète wala ki am noxum cité wala leneen ak leneen toujours dafa am ay symptôme ay élément yo xam mom ngay moy élément de diagnostic donc malade bu ñëwé ya un questionnement bo xam mom nga wara procéder parce que man j'ai toujours dama koy wax na man démarche scientifique la yor. Mhm. bien que jàng naa si baatin mais aussi la démarche scientifique xam nga bo xasse jang science mom mhm. lepp loy ci dang koy bëgg base euh, palpable dans le concret. Mhm. donc que ça soit même docteur bi tay bo demee ci mom questionnement boobu mënta bañ a am. xëy appareil daf koy utiliser après pour en guise de complément. mais questionnement malade bu ne dafa am symptôme léeg-léeg nag fi jafe-jafe mooy léeg-léeg mu am ay symptômes yu jigéente. parfois aussi foofu la nag complément bi baaxee entre médecine traditionnelle ak médecine moderne parce que léeg-léeg fe malade ñëw indaale ay këyitam. Mhm. ni la man kat nangama ma dal. kon kooku def naa diagnostic dootu sa am. Mhm. léeg-léeg nit ñëw aussi jaarul hôpital man toujours boo ñëwee dinaa la wax comme boo ñëwee ni jabet laa am. Mhm. bu ma la laajee questionné ba leer ma ni argument yi nga ma jox kat wan ni ma jabat la mhm. dinaa la laaj aussi ndax mës nga dem kër docteur ak fan lañ toll ak yow mhm. a xam fan laay commencé ak a jox euh, boo xoolee ne nga symptômes yi léeg euh, mu mhm. xaw a niroo niroo ba euh, mën la jural sax nga jaawale feebar bi ko beneen feebar effectivement foofu natt baax na ci te yéen amu leen appareil yooyu effectivement amuñu appareil yi mais si symptômes yi comme boo par exemple euh, nga comparer diabète mhm. ak lii di prostate mhm. xam nga léeg-léeg signes yi mën na parce que prostate léeg-léeg boo ko aussi li ngay tuur dafay bari. Mhm. diabète aussi la même chose. Mhm. mais boo xoolee déjà dina am ay points éléments yoo xamante dafay élément distinction lay am yooyu ngay a mhm. yooyu maanaam jumtuwaay mystique wala scientifique yi ngeen jëfandikoo euh, ci wàllu garab yi ngir xam ne mhm. euh, garab gi ñuy wax euh, garabu sump mhm. am na maanaam substance active bu mhm. mën a euh, équilibré jabet wala garab gi ñuy wax garabu xay am na substance am na substance active boo xamee ne peut-être que mën na calmer ay maux de ventre te it bu ñu xoolee gëstuwaat ko ci beneen anam boo xamee ne xëy na du mën a indi li ñuy tuddee effet secondaire ci diggante ki nga xamee ne dafa am feebar boobu ba pare amee ulcère bu ko naanee voilà xam nga boo xoolee empiriste yi dañ ni toute connaissance vient de l' expérience. Mhm. puisque boo xoolee cosaan yàgg na fi te presque appareil mosuñu ko utiliser. Mhm. parce que maam yi par expérience lañu daan faje mhm. te comme dañu am lu ñu donn aussi da siy am garab yoo xam ne maanaam la maam yi daan jëfandikoo la ñuy ñëw rek jël. mais aussi boo xoolee léegi science avancée na ba nga xam ne boo demee dans les pays européens léegi. Euh, am na des livres même yu ñu bind. Mhm. garab yi ngay gis fii yëpp y a des noms yoo xamante ne c'est des noms communs tout tout un mhm. soo demee si livre yooyu garab bu se ne wax nañ la substance ya sa nekk am na garab yoo xamante ne c'est euh, plante épurative maanaam dañuy génne ay microbes si yaram. Mhm. am na yoo xamante ne dañuy c'est des euh, arbres yoo dañuy yokk maanaam kattan. et cetera et cetera bokk ñun aussi dañuy gëstu dañuy jël livre yooyu di ko lire donc am nañ foofu ay éléments mën nañ sukkandiku garab goo ma jox tey jii mën naa la wax nii kii ndax épuratif la wala kii ndax day yokk doole et cetera et cetera mm-hmm. donc da ngay boole cosaan bi aussi ak di gëstu mm-hmm. uh-huh. kon euh, bu ñuy xool euh, maanaam euh, yamul rek ci kii bi ndax boo xoolee mm-hmm. ni jamonoy doxee dem nañ sax ba dugg ci li ñuy wax télémédecine bi donc mu mel ne science bi moo ngi évoluer maanaam paj ma fam ne woon jógee na fa ndax la maam doon dundee bokkut ak ñun li ñuy dundee léegi donc la doon faj maam est-ce que mën nañ ci sukkandiku ngir faj ñun ñu effectivement parce que xam nga dama ni mais garab du faj. garab mom moy faj garab du faj. garab du faj nga teg wax jojo voilà puisque boo déggee ma ni garab du faj moy que ne xam nga yalla du juum. Mm-hmm. doomu adama bu yalla bind. def na ci sa organisme ay éléments de défense. Mm-hmm. yo xamante bu fièvre ñee ñom ñoo war a ak microbe bi. Mm-hmm. mais léeg-léeg microbe dafay dem ba dafay commencer néewal doole élément yooyu. léegi garab bi moom bu ñëwee dafay renforcer rek. doole euh, euh, éléments yi ñoo war a ñoo war a service de défense mhm. organisme daf koy renforcer donc garab gi dafay dimbali sa yaram mhm. ngir mu xeex ak jàngoro bi mais garab gi du moom euh, effectivement moom may faj kon maanaam du garab yi pay faj garab yi du garab yi faj loolu mënuma ko wax mhm. mais xam naa ni bare na garab yi faj yan ñooy maanaam ndax mën nga ñu ñëwal ci wàllu garab yooyu voilà léegi wàllu garab yi dinaa si ñëw li tax ma war a ñëw si wàllu garab yi dafa am solo mooy garab dina faj. Mhm. mais nit kii wut garab il faut mu xam garab. garab benn yoon dafa benn dafa am ñu ñu koy wute garab gi nga dagg suba ak garab gi nga dagg ngoon mën nañ bokk lu mën bañ a bokk lu ñuy faj garab gi nga xam ni danga nga ko dagg bu fekkee dafa sëq. Mhm. ak garab gi nga xam ne danga ko dagg bu perdee ay xobam. Mhm. ak ki nga xam dafa commencé meññi bokkuñu parce que garab bi nga xam ne par exemple dafa commencé meññi boo ko xoolee xob bi mooy ëpp doole reen bi. donc la am njariñ si reen dafay yéeg nekk si xob bi donc heure boobu boo si wutee ren ren boobu du la amal njariñ mais bu fekkee garab gi nga xam ni maanaam dafa sëq ba noppi wala mu amatul ay xob mu perdre ay feuyam garab kooku boo wutee ren lay am njariñ si garab gi maa ngi sa ren ya donc période boobu nga warul garab donc loolu il faut nit xam ko beneen bi mooy garab day faj mais il faut nga xam noo ko war a jëfandikoo wax naa ne waloon naa wax si benn émission ni reenu senjeñ dina faj waaye bu ëppee day lor parce que senjeñ baax na trop mais bu ëppee mën na indil tolof tolof mën même prostate parce que sa prostate si pour daf koy sonal naan bi am na quantité boo dafay koy user. Mhm. su prostate donc garab toujours dosage bi aussi garab li faj ak li xob bi mhm. mhm. dama lay jox exemple boo jëlee ngéejaan ren xasum ngéejaan day waaye xob ba tension lay faj wala jabet soo jëlee senjeñ <laughs> reenub senjeñ dina nooyal biir maanaam boo koy faral di jël li ñu naan ay constipation affaire yëpp du la dal <laughs> mais xob bi si sibbiru lay faj dinay faj aussi tàngoor yi am koo xam sa yaram fu ne dafay dëkkee di tàng kooku xob yi senjeñ yi ngay jël nga sajj ko def ko li ñu naan décoction maanaam baxal ko lu tolloo 15 minutes di ko naan <laughs> donc garab lu am solo la waaye nag xam garab aussi baax na Euh, maanaam kon bu ñu xoolee garab dafa tënku ci euh, maanaam ay poñ yu bari mhm. dinañ ci gis reen bi mhm. dinañ ci gis xas mi dinañ ci gis aussi bant bi ci biir ndax xas mi rek yamu ci mhm. waaye bokk na ci euh, ba ci xob yi waaye dafay boo xoolee dafay tombeek maanaam période bi nga xamee ne ci lañu koy jël kon loolu lu ci am solo la waaye junj nga benn mbir muy bu ñu xoolee coow lu bari na ci jabet maaman geek mu ñu leen nag lu ñu doon ko coow bari na ci maanaam lan mooy jabet voilà jabet olof yi dinañ koy wax feebaru suukar. Mhm. mais Ismaïla ñaari forme jabet moo am. Euh, muy ban ak ban. am na jabet bi nga xam ne moom la ñuy wax jabet insulino dépendant moom la naan jabet juvénile. Mhm. wala jabet maigre. maigre am na beneen jabet bu ñuy wax jabet insulino résistant wala non insulino dépendant moom mooy bi naan jabet gras. bon mais jabet ni koy xamee si nit ki nii la jabet benn bu la dalee di nga bari looy tuur ndox. Mhm. te booy tuur ndox tuur ndox bu am solo lay doon jabet bu la dalee foo toll da ngay bar parce que ndox boobu ngay génn moom moo tax jabet bu la dalee di nga dem ba sa yaram maanaam góom boo ko amee du gaaw wér jabet bu la dalee da ngay am en général une fatigue mhm. foo toll rek sa yaram dafay diis et cetera et cetera donc yooyu mooy symptômes yi nga xam ne mën nañ ko xàmmee jabet mhm. mais jabet boobu effectivement dañ koy faj mais bala maa wax li koy faj dinaa la leeral ñaari forme jabet yooyu lan mooy seen différence mhm. boo jëlee jabet insulino dépendant bi ñu koy wax diabète maigre boo xoolee jabet boobu dañ ne lu koy causé lenn la xam nga boo xoolee gàddamu doomu aadama ñu koy wax pancréas mhm. dafa am ñaari type de cellule dafa am cellule yi ñuy wax les acinis am cellule yi ñuy wax les îlots de Langerhans mhm. îlots de Langerhans yi boo ko jëlee dafa am ay type de cellule alpha ak bêta mhm. léegi type de cellule beta yooyu boo xoolee léeg-léeg di nga gis doom aadama yoo xamante ni presque du ñu am ay cellule bêta am si ñoo xamante ni dinañ ko am mais dafay néew am si ñoo xamante ni cellule bétail dañu fay nekk mais dañuy atrophié wu dañuy fasu mhm. de telle sorte que du ñu mën a produire insuline bi nga xam ne moo war a réguler euh, glycémie bi mhm. maanaam suukar soo na si yaram bi que boo xoolee li ñu naan res muy foie mhm. moom mooy réguler suukar si bu ëppee un gramme par litre daf koy delloo delloo si bu manqué aussi un gramme par litre daf koy yéegalaat ba mu nekk un gramme par litre puisque yow boo tu as tendance à l'hyperglycémie maanaam sa taux sucre dafay ëpp 1 gramme par litre donc reste boobu moom mooy defaat liggéey bi te liggéey bi insuline bi moo ko siy dimbali mooy nekk hormone bi nga xam ne moom mooy euh, toppatoo liggéey boobu su ko defee moo koy delloo si ba mu nekk 1 gramme par litre mhm. su fekkee da nga mel ni da nga woor nga xam ne sa suukar day wàññeeku da ngay am tendance à l'hypoglycémie su ko defee sa suukar dafay wàcc dootul matati 1 su ko defee léegi pancréas euh, dëggal euh, reste bi mhm. suukar sama dencoon que ni muy stocké suukar bi lenn la glucose bi daf koy bu koy denc da koy def glycogène maanaam réaction bi dafay nekk C6H12O6N fois donne euh, C6H10O5N fois plus NH2O mooy maanaam glucose dafay joxe glycogène kooku moom noonu lay denc suukar si boo demee nag ba nga xam ne da nga war sa suukar manqué dafay def réaction inverse bi dafay jëlaat euh, glycogène boobu transformé ko defaat ko glucose su ko defee sa taux sucre yégaat ba 1 grand par litre noonu la régulation bi démé mhm. koku moy premier type de diabète bi. beneen diabète bi moy diabète insulino résistant koku bo xolé pancréas bi dafay dafay du am ben tolof tolof. Mhm. mais dañuy gis ki nit ki dafay am diabète. donc dañ ni légui insuline ma nga fa puisque pancréas ba fa ma nga fay ma ngay produire insuline. Mhm. mais problème bi moy insuline bobu yaram bi du ko mën a utiliser puisque cellule ya warana a jot insuline bi duñ ko meuna jot dañuy am tolof tolof. loolu yax moo tax dañuy cellule cible yoo nga xam ñooy jot insuline bi dootuñu ko mën mhm. ñu doomu aadama war nga toppatoo sa dund li ngay lekke suñ mbokk njóobeen yi léeg-léeg xam nga rek lu ne dañ koy jëfandikoo mhm. te yenn aliments yi dafa doy waar daal surtout les aliments gras yàpp yi fii lu ne ñu jël eh, diwlin ji graisse gi et cetera baaxul bu ëppee dafay dem ba yow organisme bi doon réguler sa eh, kii dootu ko mën dafay am ay tolof tolof mhm. yooyu dinay jur léeg-léeg genre ti bu diabète yooyu mais jabet bu mu si mën a doon aussi am na saafara beneen bi gën a yomb mooy laaj faj ak équilibré faj ak équilibré du benn sëñ Samba dina ko del day benn dina delloo suukar si mais dinaa ñëw si am na complément dinaa si ñëw parce que dafa am na xam day delloo suukar si <laughs> am yeneen yooyu utiliser selon tibu jabet bi <laughs> maintenant pour revitaliser organes yooyu nga xam ñoo am tolof tolof <laughs> bu dee îlot de Langerhans si ñu mën koy